nous parlons tout de suite euh, bijoux euh, Mixa. exactement Pape Cheikh Mixa parce que dañu defar ay gamme de produits yu bëri bu ci nekk ak fi nga xamante ne moom lañ ko war a utiliser bii nii ñu leen di waaje woon ci vidéo bi. Mm. dañ ko mettre en à notre disposition pour changement de température bu amee ñu war ko mun utiliser nañ xool vidéo bi après ñu jox leen un petit peu plus d'explication. mais j'ai très souvent la peau sèche, irritée et inconfortable. Comme de nombreuses personnes, vous avez peut-être la peau sensible. C'est le moment d'essayer les laits Cormixa, l'expert des peaux sensibles. Des formules uniques testées sous contrôle médical pour nourrir en profondeur, réparer intensément et protéger votre peau pendant heures. Ma peau est apaisée, plus souple, éclatante et n'a jamais eu l'air si saine. comme la sienne. Nouveau lait Cormixa, l'apaisement immédiat des peaux sensibles. Voilà, et puis ce qui est chouette ak euh, euh, gaamu euh, mixa yi Mado est lancé quelque chose ni muy xale muy mag muy góor muy jigéen ak sa peau nu mu mënti mel peau bu dëgër. Mhm. peau bu peau bu peau bu peau bu nooy. am na ay protection yu am solo. yu yu surtout bii nii dañ ko def pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo am peau sensible. parce que loolu xam nga ñun duñ ko mhm. mais souvent boo dee dans la vie de tous les jours. donc nga koy gis am na ñoo xam ne changement de température bu amee rek comme ni muy commencé tey mu tàng. Mm. suba mu sedd dafa leen di sonnal ba nga xamante ne seen peau dafay déshydraté di didim parfois di nga ci gis ñoo xam ne dañuy am peau yuy mel ni luy fett. mooy yi nga xamante ne day mel ni sécheresse foofu la ñu. voilà karokase yi voilà yow ci connais manière donc ci tànk yeeg ci loxo yi dañ ko ciy seetlu bu baax. Uh-huh. donc peau boobu boo ko gisee mooy dafa manqué ndox dafa mar. Mm, ñoom nag dañu def euh, formule boo xamante ne dafay permettre mu mu hydrater peau bi en profondeur. day dugg ba ci biir. Mm-hmm. diw bi dugg ba ci biir su ko defee. écailles yi nga. Mm-hmm. Ah, dugg na sa terrain. Mm-hmm. <laughs> <laughs> du benn bu rafetal <laughs> yëpp dugg na ci sa terrain bu rafetal dara benn la benn la benn la <laughs> benn la bu ñu ko bu ñu ko benn élément tam waaw d'accord bu ñu ko boo xamante ne boo ko defee sa pot dafay dugg ci biir bu baax hydraté mm-hmm. ko ba nga xamante ne fett fett yooyu nga doon gis yëpp dootuloo ko gis sa dafay lisse tu sens que ta peau est nourrie et surtout euh, comme peau sensible dañ ko war a protéger au maximum ndax li mu mën a réagir dafa bëri li ko mun jox irritation wala picc dafa bëri mhm. ñoom dañ koy testé dermatologiquement ba nga xamante ne dañ koy dañuy bind sax si suuf que c'est mhm. hypoallergénique mhm. donc ce qui fait que lépp li la mën a gaañ dañ koy dindi boo ko hydraté jàmm ngay am journée bi yëpp pendant 48 heures nga mun toog bañ ko waat donc formule boobu ñi am peau sensible ñëpp nañ ko jël utiliser voilà et c'est disponible partout en pharmacie dans les boutiques et surtout c'est pas cher c'est pas cher c'est ça te en général diw hypoallergénique nga seet dermato sax mu bindal la ko mais tu te produit bu cher la en Mixa mm. bon c'est chouette merci pour cette découverte téléachat ak euh, euh, bijou si euh, Mixa sa ça demain on va en reparler ci loolee nga xam ni moo jëm ci produit bu am solo bi